ñu bëgg a bàyyi bu bismillah ma wax leen tuuram ay caat abu muhammad la na nga jël mooy tuuram su dégg ma dégloo ma wax fi mbiram ay caat jox ma sa nopp yow mi ko taxaw tey ku way ma way ku fi wayul ma way ay caat góor gi ma tuddee dafa neex a way dafa neex ay waaw musuma coono way jëm ci moom ay jaan waay sama turandoo ma dem ay mayam waaw tay na ab jure la ma dir boo daa am ne ay jaan waay barke askanam moo tax tey tamam waaw dana alalam bay jox ay magam ay jaan waay tax na àddina ñëpp yi muy mbiram dafa kawan ca moom ndax am ngay def bàyyi bu amul morom tabe ga woon ca moom ndax am na morom laa déedéet bàyyi bu amul morom dama ko wax ci micro bi ba def public bi ñu aw ma ci ñëw wax tabe ga woon ca moom ndax am na morom laa déedéet tabe ga woon ca moom ndax am na morom doomam yëpp ko gëm moo tax ay bésam waaw réussite totale foo jaar faw mu am doomam yëpp ko gëm moo tax ay bésam réussite totale foo jaar faw mu am sëtam yëpp ko gëm moo tax ay bésam réussite totale foo jaar faw mu am bésam dafay neex bay dara jaam ay jaam mu ne su ko misaal mooy feeñ ci bësëm bësëm na fay neex ndax bay dara jaam mu ne su ko misaal mooy feeñ ci bësëm xoolal saara gati kamu ne ni mu sore waaye ku dem ren doo jaar dem ren xoolal saara gati kamu ne ni mu sore waaye ku dem ren doo jaar dem ren ne mu ma dàkkal arab waaw waaw lay jiit ku ma wax man arab waaw lay jiit ne mu ma dàkkal arab te bu yomal xiyaane arab nga mooy waxam lu tax arab bu yomal xiyaane arab nga mooy waxam ay wax la ci wolof lu tax arab diggante man baay boo ma sol di ma jàngal ni may waye tam baay boo ko sol man sama waajur keneen la ma naroon a tuddee keneen baay boo ñëw ne ko kii tur wi maa ko moom moo ma tudd moo ma génn moom soxna Mamadou Ami jërëjëf moo ma tudd moo ma génn baay boo ma sol di ma jàngal itam bu ko jàngul dafay xool bu jëf ci batu waaw waaw alxuraan la def xaritam ah, bu ko jàngul dafay xool bu jëf ci batu waaw ay bu alxuraan la def xaritam bu ko jàngul dafay xool bu jëf ci batu waaw am na ñu naan bu si ñor daa mën a affaire bu mu tudde bay bu foo jaar mën a affaire oh. Monsignor daa mën a affaire ay jaadu waay nu tudde bay bu foo jaar mën a affaire ana fa barke lu ma wax nay lu neex ay jaadu waay na dugg ci xoli nit ñi sax fa gën di ne ay waaw waaw bay la nag na ñëw ànd ak sécurité ku may foog yow lay gis yàlla sécurité bay bu kër bi waaw yaa pere sala dëgg la bay bu kër bi waaw yaa pere sala bay bu dër bi waaw yaa koy salaat bu daara waaw yaa koy salaat bu ak waaw yaa koy salaat bu ak waaw waaw yaa koy salaat inu bental la min bay bay bu inu bental la min bay bay bu ami saw kunta kuy sama am neen bu batu xumma kuy sama am bu boo soxna maam booy baay dee baay boo def nga fa baay boo jamaa bi yaa ko soos baay baay boo sunu yaa ko fees baay baay boo man maa ngi sa barke yow baay baay boo ak ubbiku ci lii ma ne baay baay boo ak jàppandal na law fi man baay lépp lu ma song naa ko daan baay baay bu may kilifa ci lii ma ne baay bu may royukaay ci lii ma ne baay bu ana baay bu jógati leen ñëwati naa cey baay bu ñu way kamal baay sunu baay cey baay bu ku la matul baay doo ko sagal na ma lool Sagal na ma lool jërëjëf, jaral na ma lool waaw, sagal na nu baay tey bàyyi bu neex du bay jërëjëf dem ba beneen yoon fii lay yem ak yéen oh, oh, oh. sagal ganu baay wale ma dem ma dem mbaa ma toog bàyyi leen ma dem sagal ganu baay jërëjëf jërëjëf loolu sax mu néew mu bëri yàlla ko yàlla def yiw